sa yaay ki la juuf ba may sëy di def lu baax booba lii xewul fayul tukkiwul yàgg kenn jëliwul bàkke Mohamed yaa baax yaa gore tabaarikàlla rawal say maas mais nee naa la ku xaar dina xaar di ah da leen dóor ba damb leen yóbbu leen siin ca choléra ba kenn du leen jël da leen di jaaji tegal leen ci suuf yaa leen mën dama ko ñamal ritam ba leen nag karañu nguñ waali karaña ngañ raw car car car car car car car car car sang bu baax cara ñu ngañ mu yéen ni raw car car car car car car car sang bu baax ma ñëw ma ñëw bay si ñi ay mbokkam ma ñëw yéen ñi ay mbokkam doo leen koy gërëm ñu ñi ay xaritam di seetaan ñu toogaat fii ma firndeel ko si taabal ji. Mm. ne ko dellul ginnaaw te reculer tuuti keroog ba mu lay teg si chaise bi naan la di nga dóor lu waax. maa ko wax waaw. nit def del dellu ginnaaw di xool li weesu. bala ngay lijjanti li si kanam del lijjanti li weesu a fàtte mat xam. dëgg la te jëmm ji du fàtte. kon nag fëri. dafa am ku ñu muy Njóogu Mbay ndeysaan waaw musuma li may yen Njóogu kenn ku ma ko yenoon ci kër gi dem danaa bëgg maa lu grave li may yen Njóogu Mbay kenn ku ma ko yenoon ci kër gi walla éliminé wu ma kenn ak koom nga doon dem nga mujjee wax pour tëj rek ndax man lenn rek laa koy ñaanal tant que ak bii incha ci kàttanu yàlla lépp luy yéene seen biir xol billaahi wallaahi taala day man man de xam naa benn affaire boo doon lim ñett ba ñeent doomu aadama ci kaw suuf ñi mu bokkal ak ñi mu bokkul ñëpp barki Cheikhul Khadim man bambaay seet juruma ci billaahi wallaahi taala ku ma tegal kaame damay dóor sama loxo waat na ñeent nit laa la wax ñeent